spécial Ousmane Diis nee naa leen nii lay demee 10 heures bu jot ba na maire bii nga xamante dafa poté laay may sama bés bii fas yéene ko koo jox xolal mu naan ko xolam neex mu continué njaay mi ci fulla ak fayda ba tax na maire bi dama koy may xola mbay njaay korndigo korndi nene naaf yo nga xamee tambi na waa maaga waa maaga jam soma njëm jam soma njëm jam rek kay jam rek jam som kay jam som jam laay jam lam laay jam baay boy nuyu naa fay naa la. man booy néew noo tuddoon. man Adama Dieng. su ma la bëggee changer tur nag. a ah, seeta rek lu la neex. Rismon Diis neex na la. waaw waaw. waxal man léegi Rismon Diis laa tudd. Rismon Diis laa tudd. naka nga tudd. Rismon Diis. naka. Rismon Diis. neel kilo Rismon Diis. kilo Rismon moon nuyul ñi nga xam ñëpp ci Assane Ndiaye bii kay. nuyu naa ñi ma xam lépp ci Assane Ndiaye. neel maa ngi koy may sama doom yëpp kay. maa ngi koy may sama doom yëpp. ak kenn kay. ak kenn ak ñu ci bokk. neel Assane Ndiaye euh, Mbaye Ndiaye bi may naa leen ko yéen ñëpp. Mbaye Ndiaye bi may laal leen ko yéen yëpp. kor ndigo kor ndigo. kor ndigo bés fa nan nekkee taxu koora xooxa. kam ah! eh, yaa koy daggate ne kilo bes. boisson bi ma lay may. uyu ma am am boisson bii boo ko naane day dindi sa coono léegi boisson bi moo tudd bes léegi boo bëggee jënd boisson danga naan borom boutique bi jaay ma bes bi Amina Poté di publicité neel kilo bes. kilo bés spécialiste moon gis loolu moo nekk Mbaye Ndiaye bi tey koy ci Mbaye Ndiaye bi. ñëpp laa ciy ak ci bëgg a mbisaan. dul kii mbis la. ah mbis. mbis jiis. mbis jiis. spécial respond jiis nee na nuyu na ci Mbaye Ndiaye bi ku ko neex ba tax na temps yi Mbaye Ndiaye ko koor bi koy dagate jox leen ni Mbaye Ndiaye fi muy wàccee gàmm bi am. mais tonton yaa rafet. merci beaucoup. mais tonton lii mbaa jàmm la. jàmm ak salaam. nii nga taaroo nii mbaa jàmm. jàmm tuwaar. mais soxna ya laa jëm. ca soxna ya. tonton looy wuti foofu. ah jëm kër ga rek. ca kër ga. seeti xale yi. seeti njaboot. Ah. mais tonton fi mu nekk nii noo tuddoon ba pare. man tur bi dama koy leb. kon léegi bàyyi ma tuddee Rismon Djizz neex na la. neex na ma mais léegi Rismon Djizz laa tudd. naka. Rizwan Diaz. neel kilo bes. xam nga bes. bes bes. mës nga ko naan. oui muy def ci yaram. ah c'est bon. c'est très. bon c'est très. bon tubaabe am. léegi nuyul ku la neex ci Mbaye Ndiaye. maa ngi nuyu sama soxna yëpp. sa mignonne jolie yi. Dramé. neel neel sama mignonne jolie. mignonne jolie ak kan a ngañ bi tey spécial Rizwan fi mu nekk nuyu na mignonne jolie yi ak Djiby Dramé ak ñooñu mu lim ba tax na ñu jàll ci xola beneen clip bu xola mais mère noo tuddoo. baal ma rek baal fi mu nekk nii nuyul ku la neex ci sa waa kër yi. koo koy may. ñëpp kay ñëpp ak kan ak yow. ak man eh, nel dafa rismon jiis. dafa rismon jiis. naka léegi maire yëpp xam nañ rismon jiis ba tax na maire bi nee na Mbaye bi may na ko waa këram yëpp ñu jàll ci beneen clip xoolal bu saf sàpp nee naa leen kii lañ àndal best is the best ba tax na best bi xoolal am leen spécial Ousmane Diis nee naa leen tey ba tey bu leen fàtte ni ñi ngi biir marché Fass nee naa leen ñun lii lañ leen mënal fi mu nekk ni xolal di xëy 10 heures bu jot di jàkkaarloo ak yéen ku ci nekk bàyyi liggéeyam di xaar li nga xam ne mooy émission Ousmane Diis ñu leen koy jox ak yéene di defar ba mu baax ndax bëgg ngeen kontaan ñu àndoon cee nag boisson bi nga xamante ne mooy best is the best nee naa leen wóor na qualité la ci boisson yi ba tax dama ciy nuyu sama bi na nga def. waaw ça va. yow noo tudd. Kiné Diallo. ah Kiné Diallo. Kiné Diallo. oui. Kiné. oui. Kiné Diallo. Kindi Diallo. Kindi Diallo. oui. waaye xam nga Rismon Djiz. ah moi je parle en français. waaw parle comme moi Rismon Djiz. moi je n'ai pas compris ce que tu. waaw parle dis Rismon wax Rismon Djiz. Rismon Djiz. parle Rismon Djiz. Rismon Djiz. quoi. Rismon Djiz. encore. Rismon Djiz. dis kilo Rismon Djiz. kilo Rismon Djiz. kilo. kilo. Rismon Djiz. Rismon Djiz. eh qu'est-ce que tu fais ici. moi je vends. tu vends quoi. Je vends des slips et des chaussures. Tu vends quoi? Des slips et des chaussures. Quoi? Slip. En caleçon. Waouh. je vends <laughs> des caleçons. Ah ouais, j'aime bien ça pour moi. Ça c'est combien? Ça c'est 100 francs. 100 francs. Oui. Ouais, j'aime bien pour moi hein. Bien. Bien. Oui. Ça c'est euh quel ami <laughs> <laughs> ak Ina 10 kilos slip. Moi je vends des slips. kilo silip. tax na émission Rismon ji dama koy laaj ban clip la bonbon bàyyi ma bonbon laa ko aimé ah, euh, sali sali tout le monde sur le clip de bonbon. Kindi Diallo je salue tout le monde. avec qui. avec toi mon ami. ah bon comment tu t'appelles. je Tu s'appelles Kinde Diallo Oui, comme toi. Il pas de problème, merci. Merci beaucoup, Kinde. Oui, merci. À la ok, prochaine. fi mu nekk nii nii la demee chaque jour émission bi nee naa leen dara ñoruñu lu dul xoolal neexaayu clip bi ak li ngeen koy seetaan bëgg ko torop moo ñu ñor moo tax duñ leen bàyyi ba tax na clip bi mi ngi noonu bonbon ñogonalu xale yi nee leen bonbon. bonbon. doo am si de moo koy maye. dafa ris moon diis. naka. naka. waxuñ ris moon reetaan de ris moon diis. ris moon diis. naka. nekk ris diis. naka. ba tax na fi mu nekk nii bés laa lay may i nee naa leen lii moo koy tëgg ana bés bi. Diaris Mon 10 fi mu nekk nii fii lañ koy yemale ba beneen yoon ci beneen émission ak yeneen i 10 heures pour di leen bigal rek nee naa leen pas un pas sans baisse best is the best temps yi xolam ak. sinon yaa bul bàyyi